borom tubaab am na ay jigéen yu doon jëw mu yëkku ni nañu gas fa ñu toogoon suul ko te jàng fa kaame ba bis ba dellu si lu ko mooy malaaka yërmande yi dootuñu fa wàcc